waa kër Duudu Kay yi doon rayante ak ñooñu Ousmane Sonko yi démb ci Sigicoor li yéene kaay yi xëy di jokk jolante ubbi l'Observateur ci i garde corpsam ba ñuy dem ca ndaje ma ca la ñu romb ci buntu kër ñoom Duudu ay nit yu fa dajaloo doon ko yuuxoo moom Ousmane naan ko violeur bi yéene kaay bi nañu Ousmane Sonko yeggee ca ndajama ñu toog di waxtaan minute yay dem yëf di gën di jaxasoo ca la responsable yi yi woote woon ndajam génn doon wax ak ñi doon yuuxoo Ousmane Sonko waaye mbir jarañu ci dara ca la Ousmane Sonko jóge bëgg a ñibbi ñu tànc ko fa lu mat ñetti téeméeri ndaw di ay jeune wër oto Ousmane Sonko bi di ko caxat-caxatee garde du corps Ousmane Sonko yi soqi fay bali fetal dóor ko ca kaw mu di ay tir de sommation fa la jàmmu jeexe fitna ca jolli xeer ya naaw kurpañ ya ba ne ba am na ci ñett ñoo xam ne l'observateur a mujj ca nañu borom gaañu-gaañu yu garaaw yi ci waa kër Ousmane Sonko yi la bokk waa kër Doudou Kay li wax ñoom moo di waa Pastef yi ñoo leen cokkaas provoqué leen ñoo ngir songi kër ñu mbirum Doudou Ka journal nañu gars yi parti yi Doudou Ka la ci fitna ji am démb ci Sigicoor nee nañu mooy ki ko sooke mu di tuuma yooyu journal bi xamal nañu ne ñi ak Doudou weddi nañu ko ba mu set wecc li ñu wax moo di Ousmane Sonko ak fitna ji mu tàmm ñëpp xamee ko ko moo fa ñëw ak i nervem bëggoon a songi kër ñoom Doudou Ka ko bind ci xëtamu njëkk ne ci jamono ji ñeenti weer doxee suñu digganteek élection locale yi ci la arme blanche la ñu leen gaañee élément sécurité yi àndoon ak Ousmane Sonko ñoo fa dóor ay bali fetal ci kaw ngir bëggoon xàllal Ousmane Sonko yoonu mu mën a jaar ba ñibbi këram Doudou Ka mi ñu tuumaal mag waa këram mi ngi dàq tuuma yi ci xët mu njëkk bi nee na ay nervi yu Ousmane Sonko ñoo geetaro ngànnaayu ba dëgër taafantaloo ab réunion en face sama kër dem attaqué ji kër ga Vox Populi nañu li xew démb ca Bukot ñaari wàll yépp a ngi koy wéng wéngalante ku ci nekk di ko jiñ sa morom waaye li leer ba leer moo di na ñent ci militant yu Ousmane Sonko yi jëlee ci gaañu te ñoo ngi waxit ne ci waa kër Doudou Ka yi jëlee gaañu gaañu vox ñuy waa Pastef yi dem nañu bay xam le ne am na seen benn militant bu a di ci diggante waa may dara ñoom it ñoo lu jëm ci yooyu la élection locale les économies ngi ñuy xibaar ne fan fanweeri fan ci weeru octobre ca la ñuy tàmbali déposé liste yi ñeenti fan ci weeru ca la koy arrêté enquête dina kay xëy arrêté ci maire yi nga xam ne caaxaan jëlewu leen ca maire yi ñu jiite ndax yàgg gu ñu fa yàgg bokk na ci alaaji Mas Gueye mi def ñeen fukkeet ak ñeent ca bopp maire bu Mbayeen bokk na ci Nguu mi nga xam ne ba léegi mooy maire bu Ngandiouf bokk na ci kii di Omar Sarr ak ñeneen wàllu transhumance enquête dina kay gis ne mooy yoon wi gën a gaaw ngir mën a yàgg ak sa ndombal tànk ci wàllu politique firndeli yéene woon ca parti socialiste jóge fa dem ci parti démocratique Sénégal di ñoom Abdoulaye Wade léegi moom aalelo ma nga ca mouvance présidentielle bi directeur bu clinique Madeleine ma nga ca loxo yoon l'observateur moo ñu jox xibaar bi ci xët njëkk coowal bébé bi lakkoon ba xam faatu ca nurserie bu clinique Madeleine moo tax ñu téye ko cib garde à vue l'observateur nañu te moom rek moom directeur clinique ba la ak pédiatre ba ak infirmière ba ak soleil national nee nañu ñiy xeex ngir bëgg ñu légaliser ko ci réew mi yëf yi du yomb ci ñoom ne protocole de Maputo bi ñu bëgg a sukkandiku le protocole ba wax ak li code bu réew mi wax du benn boole cekkit fii ci réew mi nit yi diine yi ànduñu ci Dior Sow Fall bokk ci task force bi xeex ngir ñu légaliser ko ci réew mi ne ci xët mu njëkk national li ñu tax di sonn yëpp ngir njariñal doomu aadama la lise ko mel ne ko naan ñu bu ñu ko légaliser wut terewul avortement yaa ngi mel ne tulleeg màlle ci réew mi yéenekaay bi sukkandiku ci xibaar yu mu jëlee ci Aminata Libembeng di psychologue clinicienne muy wax ne ci menn at wàññi nañu